alors Père Gaston euh, bu ñu gisee situation bi ni mu demee yow naka nga koy jàngatee parce que euh, ginnaaw convocation bi am na arrestation ñoom wax nañu ne am na ci ñoo xam ne dañ leen brutaliser ba ci mali gàkku sax euh, lu jëm ci nee nañu mbaggam daf ci am blessure ba ñëwul tey ci conférence de presse bi situation bi ñu toll ci violence bi ci élection yoo xam ne demaguñu ci ci convocation ban jàngat nga ci am. jërëjëf Fatabou jàngat bi ma ci am kay mooy que li benn sens amul benn sens. Euh, wax nga ko jël mu ko bëgg a wax léegi sama jeune frère. c'est-à-dire que ñu convoqué nit euh, tribunal ci homme politique homme politique bu ñu fa mas a convoqué rek nit ñi topp na la. muy Ablaye Wade muy Macky Sall muy Ousmane Sonko muy Khalifa sàll muy Karim Wade kon fi convoqué ñu topp la parce que nag seen su seen euh, situation moom mel noonu homme politique lañu dañuy politique man toujours damay wax damay faral di wax du nëbbatu man Macky Sall la Macky Sall laa gëm. Mhm. su ma sañoon mu nekk fi baapam jeex mu dem. mais itam nag am na yoo xam ne aussi man du ko cautionné parce que lii fi xew tey mënoon naa yóbbuwaat ay bakkan. Mhm. te jaru ko gisuma lu ko fi jar ñun ñëpp ay sénégalais loolu ñun ñëpp ñoo bokk tey juge bi teel na ko renvoyé peut-être que man xaw ma droit mais je pense que affaire bi mu amee coow wala bi Barth nekkee candidat rek mënoon nañu ko renvoyé sax avocat yi mënoon na lu demandé ñu renvoyé coow du ci am dara du ci am mais mënuñu et que bon il faut que euh, suñu mbokk yi aussi mbokk Macky Sall yi APR aussi il faut que ñu xam ne réew mi ñoom la fi yàlla teg tey am na ñenn ñu mu fi tegoon démb daf fiy teg ñeneen te sunu doom yi ñooy bëggante sëy ëllëg tey ku mënanti ñëw it du jëlal kenn. mais mais est-ce que est-ce que tamit a doxee. non non non justice déglu nañu ko dàq rek Fatou. xam nga suñu jëlee justice bëgg ko teg yoon xam nga réew mi. du jox ñuy wax ne kon justice bi dañu mhm. il faut mu am masla parce que léeg-léeg justice bëgg def dara sëriñ si dox ci ñu teg justice teg fële topp li sëriñ si dox parce que dañuy dañuy ay mbokk lañu am na loo xam ne su naree indi fitna Abdou Diouf la président Diouf. mu mhm. koy saluer au passage. Mhm. fii lañu ñu changé code électoral def lépp wàcc ci aéroport bi xëy na su eggoon ca palais ba. yàqkat yi yàq xelam ci aéroport bi la ko journaliste yi waxee mu ne leen du ma ci génne benn virgule te ko looloo ko looloo ko fi jëlee donc suñu bëggee wax ni dégg nga euh, justice justice justice sëriñ si toujours ñu changé yoonu justice cat yëpp dañ koy ñaan ñaan ci yoon na parce que ay sénégalais lanu nanu éviter da il faut ñu éviter loolu parce que tey bart mu mënu woo bon jarul li lépp Barth da koo bàyyi woon moom rek mu dem man ni ma xamee Barth koo bàyyi woon moom rek mu dem. mais peut-être ko bàyyi woon ndax kenn jàpp ko de Barth moo def déclaration. waaw non mais àndandoo bi mais solidarité aussi dafa am. Mhm. na ñu ko topp par par solidarité il fallait que ñu topp ko. bi ñuy yóbbu Ousmane Sonko dafa demoon topp ji ak ñeneen topp ñu fi yóbbu Macky Sall ñun ñëpp doon demoon topp ji Abdoulaye Wade bu ñu koy yóbbu te yooyu solidarité politicienne la il faut nit ñi di ko def. mais il faut aussi ñu xam ni réew mii ñun ñoo ko bokk. Mhm. bu ñu bëgg a teg rek loi ko sunu ku mu arrangé nga teg loi ku mu arrangé wul nga teg loi il faut ñu xam ne ñun ñëpp benn lañu. il faut ñu éviter lii dal nañ fi ay nit dee fi tey su fi ay nit dee xoolal li ñu def bu laa bombe lacrymogène lakk pëne ñu fi def man damaa mujj tiit sax. dafa mujj tiit. Eh, ci ngoon si parce que lii mënoon na jur loo xam ni. ci bi yëpp mënoon na jur loo xam ni ñun ñëpp du ci arrangé kenn. loolu loolu tegul ko fen nan delloo si xel yi. kenn nit ñi parce que président Macky Sall man xam naa ko bu baax. nit ku sensé la nit ku kii la xam nga léeg-léeg ñu toppoo dégg nga dafa dëgër boobu dafa truc tel tel tel. mais nag xam nga nit il faut nga am ay àndandoo yu la wër tel tel tel. mais mais mais mais Gaston est-ce que loolu aussi yombul. non euh, mu àndal nga gàkkal leen. moom nga weexal ko tànn non non ñu jëpp du ñëpp ñëpp gàkkuñu mais ci am ñu gàkk ñu yàq. xam naa ci dara parce que sénégalais yi faluñu mu àndal. moom ñu ko mais da ngay da am considérat une fois nga am ñoo àndal même suñu la falul man sama li may liggéey am naa ci ay collaborateur